seven. rajo Futur Media mbokk yi nuyuwaat nañu leen dellu aman bi te ànd ak yéen ci suñu programme ànd ak yéen ci suñu journal fait divers mu di xalaas fii ci rajo Futur Media ni ñu koy defee lundi ba vendredi vendredi di bés bu mujj ci semaine bi xalaas Ndoye Bane daw na Aba daw na waaye passe partout mi ngi fii moom it euh, di ànd ak ñun ci xalaas ak mbégteeg fay divers yu yéeme te garaaw yi muy indil auditeurs yi parce que maa ngi lay nuyu. Ndiaye maa ngi lay ziar maa ngi nuyu auditeurs yi ak euh, internautes yi. Mm-hmm. di gis naa ko dem dafay ñëw na de. waaw mi ngi fi. waaw gis naa ko dem mi ngi fi na ci jàmm ak mu nekk. ñu ngi koy ziar bu baax wax dëgg ziar di nuyu gaa yëpp. jërëjëf mbaay ma ma nuyu ci gaa yi suñuy partenaires yi ñuy àndal ci xalaas Euh, la santé de vos yeux est notre priorité première. Beaucoup de gens ont des optique vision plus Sénégal. C'est des lunettes partout et pour tous. Nous un des lunettes qui sont garanties, des garantie. des lunettes qui sont également qui ma classe. Nous avons des lunettes qui sont des lunettes qui sont des lunettes. Nous avons des social qui sont des lunettes vues de près ou vues de loin à partir de 15 000. Les progressifs simples qui sont des lunettes 35 000. Nous avons des lunettes qui sont des lunettes qui sont des lunettes originales qui sont des lunettes nga soxla bo Optic ci Optique Vision Plus Sénégal da ko Optique Vision Plus Sénégal ñi ngi Cyprès 2 wé so rond-point bi la kon hypermarché exclusive am nañu euh, fële euh, boutique ca Mbour Sali Carrefour Sali Carrefour Optique Vision Plus Sénégal ñi ngi waaj ubbi beneen boutique Kër mbay Mbaye Fall 33 821 54 57 77 479 63 38 sànq yaa ngi may wax ne social bi ñu doon def ci xalaas mu di tànn euh, kenn ku nekk par semaine mhm. jox ko ay lunettes ne nga commencé nañu ah. jox seeni borom seeni lunettes mhm. ñoom waa Optique Vision Plus Sénégal mi ngi noonu beneen partenaire ci xalaas moo di Max mobile téléphone bi lëmbe àdduna yeeg si Sénégal toj ko ñaar li tax mooy baax gu ñaari modèle téléphone la Max 10 am également modèle Max 30 Pro gars yi dañ may wax tout le temps euh, ñëpp ma leen di li ci modèle Max 30 Pro bi. Mm-hmm. écran bu toll ci 6 pouces écran bo téléphone boo xamante ne ji tey euh, bu duggee ci ndox wala bu ko ndox laalee dara du ci sikk da nga koy jëlaat après commencé waat utiliser waat. Ah, mémoire 32 giga 3 ram batterie 3750 mAh modèle Max 30 Pro Android 10.0, sim euh, connexion automatique moy 4G bi ak sim nak le téléphone bi di jël ba 12 mois madame 1 an euh, Max Phone ngeen ko 78 568 08 98 ngir am ay information ci Max Phone mobile wala ngeen 33 834 75 66 que gis téléphone max phone mobile des fa donc bo woté rek lay renseigner situé la. Hmm. benen partenaire ci khalas établissement wa kër Serigne Touba Fall et frère borom Gamou vite fait yi bant Bidak, dàq euh, pompe bi dàq yo weñ ak mbot hmm. dentifrice bi nga bàyyi la xetu gémmiñ bu neex modi pas dentifrice vite fait vite fait gamam yamul fofu ne am nañu frotté vite fait bu bax ci yaram buy metti di défarat sa forme retaper sa ay muscles ñu am ko ci pommade am ko ci tube mais également am ko ci pompe établissement wa kër Serigne Touba Fall et frère yi indi yoyu ci gamu vite fait amna yenen ci semaine bi dinañ leen ko wax mais ku bëgg a ak ñom da ngay woté ci 77 555 11 11 77 696 34 67 voilà, 77 441 06 38 établissement waa kër Serigne Touba Fall et Frères. passe. suñu gars Ndiaye. fu ñu tàmbalee. Ndiaye sant yàlla. Euh, Ndiaye démb. Mhm. suñu élément bi fi jàlloon suñu waji ak bi amoon na problème du divorce bek. Euh, waaw waaw waaw Té ñu ko doon dagg affaire pension Hmm. xam nga moom bi muy wax démb euh, waxul woon pour xëy na ku koy dimbali financièrement wala yooyu mais ko ko dimbali xëy pour ñu àttewaat affaire yi. parce que ñu koy daggee dafa metti mais dafa suñu ben suñu ben auditrice suñu ben yaay bu nek États-Unis bu baax. bu ñu woo demb ñu mettre en contact ak waa ji. jël na en charge pendant 3 ans. diko jox euh, demb rek jox na ko nako 150000 ko cent cinquante mille ci li ci li mu waxoon chaque mois chaque 3 mois mu nako 150000 pendant 3 ans. manam li nga xam ne mom lañ ko don dagg pour mu jëm ci xalé bi mom jël na ko en charge. maire bu dekk ko gadul gàddul. waaw pendant trois ans. donc ñu koy ñu koy. yaay jooju moom bëggul ñu wax mooy kan. waaw bëggul ñu wax turam. waaw ah, léegi moom bi mu wootee sax waxul turam daf ma woo rek kii ma boole leen directement ñoom ñaar ñu coordonné. léegi nag lim ci wut na ko ko yàlla fay. ki mu ko seqalit na gore. Hmm. ba bu mu bu mu xeeblu boppam. xam nga ñun dañoo baaxoo tey boo ñu joxee fukki junni par weer at nga koy def at ma ca topp ñuy xaar ñaar fukki junni loolu dafay xunnu nit. Hmm. bu fekkente ne su ma la rombee jox la téeméer. Hmm.

nañ jéem waxtaan waa allo Dakar yi parce que dafa am benn phénomène bu xew Thiès léegi xam nga allo Dakar yi particulier la. Mhm. mais dañuy def lu ñuy wax maraudage. maanaam maanaam ñoom transport irrégulier la ñu tuddee. Mhm. donc maraudage mooy dañuy yab ci ay points yoo xam ne waruñu faa yabee. Mhm. léegi nag ñi nga xam ne ñoo ne ci garage bi paawu coxeur yeeg yooyu dañuy taxaw ci biti oto bu ñu gis nga yab nit rek ñu woo police booy génn Thiès police jàpp la. ah ñoo lay yoole. xamatuñu ndax ka nga yab sa yaay la. xamatuñu ndax ka nga yàpp sa frère la ñoom daal seen yoon nekku ci léegi Thiès kenn amatul fitu yabee EDK ba wala buntu garage wala lu ko jege nit ñaa ngi fay am problème nag te dañuy bàyyi nga yàpp ñu woo police ba nekk ca sortie ba booy jël péage bi. Mhm. ñu jàpp la retourné waat la encore fay loola. amee ah, police moom bu la amul lu ñu mën a wane luy wane ni kii transport lay def bien nag am na transport irrégulier bu fa am mais léegi ñoom nañ manko ñu jéem a xool nu ñu régulariser loolu parce que on tamit loolu tamit ay jeunes la yuy liggéey. Mm-hmm. le problème mooy nit ki mënuloo ko forcer nit ki di nga dugg fii jëlee fii oto bi nga jëm par force. Mm-hmm. loolu mënuloo ko. Ah, ci bu ci dañee. après day pëcc xoo comme am na garage. ñii yab nañu dugg yabee foofu. Ndiaye ñiy yab nañu dugg yabee foofu. Mm-hmm. maanaam client yi nga bëgg wax. client yi oto yi jël client yi. waaw client yi tam fekkente ne nag ñoom. dañoo soxla confort. wala soxla lu gën a gaaw te amee foofu nag. awee ko ci biir ba nag mais mooy li ma lay wax rek euh, pass àdduna laaj organisation bu doon lu neex waaye def wala kenn ku nekk topp sa nafsu bakkan bu ñu kenn du bokk fu ñu jëm. nañu organiser léeg nangu loo xamante ne ji da nga koy nangu malgré yow waaye organisation ko laaj xam nga tey dem ci barab dérang neexul kenn hmm. waaye boo ko deful mu jaxasoo. am ah, ngi noonu organisation la léegi nag kon nañ nañ. beneen ay dañ leen war a organiser loolu d'accord naa ci. mu bañ a nekk benn point rek mais mu nekk point yu bari parce que yow munoo par exemple war jël oto garage ba nekk Almadi nga dem ba Almadi compliqué nañ maanaam nañ ko organiser mais express bi gën a yaatu te dégguma nga wax ci. mooy booy jinne mi jàpp. boo jinne ah Ndiaye booy jinne ba ba ba mën naa ci wax. Hmm. ah bàyyi ma rek. ah man de li ma ciy wax mooy moom moom laa koy waxal ak i moroomam mooy nañu ko àtte. Hmm. bu fekkee daal ab àtteem jàppandi na. xam nga nag dossier bu nekk instruction moom bala ñu cey sóobu day fekk xëy na yañ soxla yëpp yemb mais bu fekkee ab àtteem jàppandi na nañu ko àtte ma gën ñu koy jàpp tax del seenub liggéey bu fekkente ne mën nañ ko juger nañu ko juger moo xam moo xam li muy tëdd exactement ah, ñu doxal Ndiaye sans transition nag hmm. dañuy dañuy yemb léegi ci mbirum transport yi Ndiaye non attaqué xalaas bi directement waaw transport la ci transport la la concerné kii ah. chauffeuru car la Kaaru Njaga Njaay uh-huh. mooy ñuy daw diggante Pikine ak université uh-huh. Njaay kii daa jóge Pikine ñëw université gaare war a yabaat dellu Pikine uh-huh. ñëw di nettoyé otom fekk fu benn mbuus mbuus sachet ci suufu chaise yi sachet waaw mu yaakaar ne client yi fa fàtte seen ay bagage la tijji mbuus ma di vérifier Njaay laaj ma fekk ci mbuus bi nit allahu akbar nit nit liir la ilaha illa dañu dugal ci mbuus ma takk sànni ko ci oto tegal ko ci biir bi waaw ah. mi ngi doon dund génn naa dund la njaay déglu paa bi maa ngi yor kaar mooy jaga njaay yi di daw Pikine ak Fann jeudi ci suba mooy bi ñu suba la ñuy dem Medina Gounass Daaka boobu daal laa yebee Pikine sama première yeb maa ngi fa yebee cinq heures ay vingt yooyu cinq heures vingt yàlla dogal na tamit sama troisième yeb ci laa ñëw université gaare bi ma ràññee université pour dellu Pikine maa nga ta maa ngi egg si université ay dix heures et demi yooyu ma rang ci war a yeb ay boobu daal une heure war naa jot daal une heure ay treize yooyu ba ma taxawee ci piste bi pour yeb ci laa ubbi porte arrière bi bi ma ubbee porte arrière bi laa seen ci biir benn mbuus bu weex léegi ma yaakaar ne mbuus bi ki naa a ci fàtte seen i bagage ma ne xaaral ma seet ko bi ma wàccee mbuus bi boobu tam kenn yéegagul nag ci foofu noonu moom université moom kenn yéegagu fa waaw mbuus moom xam naa ne moom fu mu mën a jógee rek moom man Pikine laa déparé mënumaa xam nag ndax am Pikine laa ko jële wala ci yoon wi digg entre Castor Bourguiba bi fan la si yéegi wax dëgg yàlla xaw ma ko bi yàlla dogalee ba ma ñëwee taxaw fi ma ma tekki mbuus bi pour xool ko ma tekkee première mbuus bi deuxième mbuus bi maanaam mu xaw maa xeeñ daal xeeñ bu maa ngi jégalu ci ni ma ko war a waxee ay ginaaw kër la ma xaw a nuru ni moom mooy xeeñ léegi bi ma tekkee deuxième mbuus bi léegi affaire bi ni may xeeñee ëpp ay loxo man maa ngi yaakaar sax ah xëy na ku yàq tubayam moo sànni mbuus ci oto bi deuxième mbuus bi xet gi gën maa sonal léegi mënatuma koo teg ndax da koo fas cinq juróomi mbuus la juróomi mbuus ma ma teppi nag mbuus mi bi ma teppee mbuus bi ci laa gis bopp liir bi ci ci ci mbuus mi ak loxo bi ma xam nit la foofu nag sama àdduna tukki na trop ci laa ne apprenti bi bul yeb xaaral ma woo police ma taal sama dem police point bi ma eggee police point ma expliqué ko ñi ne ci poste bi ñu ni ma nañ dem demee foofu noonu ñu expliqué ko mu ni dem bureau commissaire ñu si commissaire mu ana ana baa ngi nii taxaw si buntu police bi mu ni wuroo ko woon a déplacé ko gis rek nga war a loolu de moom juum naa ci ndax bu doonoon mara détail lu mel ni accident corporel wala ay dégâts matériels ko oto yi laala yooyu laalante xam naa ne waroo ko faa jëlee mais nag lii moom tey laa ko mas a gis moom nit ci biir oto ñu def ko ci mbuus foofu moom wax dëgg yàlla moom moom aw ma maîtrise du tax di toog naan damay dem gaare fii woo police ak yooyu sama xel daal li ma jox mooy ñëw police déclaré ko wane ko moom laal sama xel loolu la ma jox waaw léegi nag boo gisee ma envoyé ko xalaas nii mooy damaa bëggoon képp koo xamante ni si nekkan nga ak jigéen yi wérul ba jamono yi passé nii ca fii ak war naa mat fukki fan ëpp na ko léegi yàlla dogal gisoo ko mu am am doom de gisutoo ko ëmbam fu mu mën a doon nga signalé ko parce li mu def man dafa ñaaw lool lool lool bi ñu la dara néew ci rek sànni ko bu ëllëgee bu affaire bi feeñee caméra surveillance mën naa feeñee ñun ci oto bi lañ ko sànnee war ma a set waaw man daal li mu def naqari demee commissaire ba ñu àndee ñëw kii constaté ko léegi commissaire bi dafa woon sapeur pompier ak service d'hygiène léegi service d'hygiène moo ñëw pompé oto bi euh, infecté désinfecté kii oto bi daal léegi ñu euh, moo jël liir bi sapeur moo ko jël gis naa daal mu bindal ko benn kayit ni benn bi CTO benn bi euh, Dantec mais xaw ma exactement ci ban hôpital la ko yóbbu. xalaas. dégg nga Ndiaye. moom dañ koy masaw. jaajëfal ko. ndax jàngal na ñu bari mhm. def na it li ko war mhm. léegi nag def na li ko war ñetti yoon mooy dem na police mhm. ñëw na ci rajo bi alerté na léegi tey nga dégg ne borom doom ji xam nañ ko xam nañ ko yi moom lu ñu jublu ah, am ci résultat loolu moom yàlla yu Sénégal yi loolu yàlla may na leen ko Njaay lii war nga cay wax de hmm. ah Njaay damaa xam ne kat jigéen ñi mënta am doom moomu ji leen jaral di dem ci ay sëriñ ak ay hôpital ak lu ne ñu dund ko. yow nga am doom xanaa au moins même boo ko juróon sa teg ko fenn ah Ndiaye lii daal man lii mun sa doy na doy na risque la ah. <laughs> ñu doxal ci beneen. Ndiaye baa ngi daw sax ah. Ndiaye Diobène mii de. bu magam de. kan Diobène mii ñëwaat ñëw. bu génnul dina tas. magam góor la wala jigéen moom. usi. la te la aussi. bu amee 18 ans ci la yem. léegi magam góor loolu la jigéen. magam tam jigéen la. Ah. moom yaayam dafa gaañu. Mhm. moom xale bi mhm. bokkuñu yaay ay doom baay lañu. Mhm. yaayam dafa gaañu bi yaayam gaañu fekk mu nekk xale bu ndaw mag ji jël ko yor ko ci këram mu ne fa ak jëkkëram korite gii paase xale bi génn dem dem fanaanu ci kër gi ñu koy woo jotuñu ko di ko woo jotuñu ko ba quatre heures du matin benn waay woote ci téléphone mag yi. Mhm. ne ko seen rakk ji dama ko for fii ci jardin public bi nee na amul paas bu mu ñibbee jëkkër ji ne ko yóbbu ko ci police ba mu dem ba mu yàgg mu war ko ne ko police bi daa tëj waaj ne ko police bi tëj amul fenn. Mhm. taal otom ñëw pour fekk ko fa waaja dem bàyyi fa xale bi. Mhm. bi ñu jëlee xale bi indi ko ci kër gi menacé ko pour yóbbu ko hôpital ak yooyu noonu xale bi ne man yàgg naa di dem ci ay góor yàgg naa séq ak ay góor. ndaw si ne kon garaaw nañ ko bàyyi comme def na loolu bugguma ko teg gàccee wala ma ma koy xaayu suturaam ñaari fan tegu ca ndaw si xëy dem hôpital xale bi ci boppam. Mhm. dugg ci néegum ndaw si ubbi armoire ndaw si xaalis bu fa jëkkër ja defoon xale bi ne doñ net ne doñ ñett bagage mag jaag yëpp maanaam roñ kër ga. Mhm. ba dam, set. Mhm. dem. Hmm? yaa déglu xale bi. man de dafa am sama benn rakk bu mu bëgg a annoncé may mën a tunkara la lu tudd ñu koy woowee mu kii jóobeel tunkara jóobeel tunkara waaye nag may mën a tunkara mooy turam fii la nekkoon ci man am na ci man cinq ans yaayam daa gaañi sama doom baay la mu nekkoon fee suñu kër gu mag gi léegi nag ma ne naa ko jël ma téye ko du ma ko jëlee ma téye ko jàppee ko ne sama doom boobu ba tey man ak moom boobu ba tey man ak moom bu feebaree man la léppam daal man la war ak sama jëkkër manqué wul dara xale bi nag ci jour kori bañ nee bañ koritee ba ca ëllëg sa tàggu na ma ne ma day dem doxantu ji si tëngéej gi noonu ma bàyyi ko mu dem doxantu ji ne ma dafa am xaritam bu muy ànd fii si koñ bi la dëkk ma bàyyi ko mu dem ba ma ko bàyyee mu dem xale bi ba ay minuit ñuy woo xale bi may woo xale bi di woo xale bi buy sone ba si yàgg xale bi coupé ma muy sone ba si yàgg xale bi coupé ma ñu def noonu ba ay quatre de du mu mujj gi mu fay téléphone am ba ay quatre heures du matin ba ñuy noddu noddu bu njëkk léegi nag am benn waa ju ñu woo ba bam ñu woowee daan nañu carrément xale bi da koo for fii ci jardin public bi waa te nee na dafa ñëwoon fii doxantu amul oto bu ko yóbbu amul dara ne ko xaam mu daan ne waaw ma ne ko man xaaral ma jox sama jëkkër ma jox ko sama jëkkër sama jëkkër ne ko jox ko nga yóbbu ko ci police ba heure bii kenn di fi for xale heure bi nga ne da koy euh, kii jël ko nga yóbbu ko seen si euh, police ba léegi mu daan ne nii mu toog ba si yàgg moom xale bu góor bi de daa di woowaat sama jëkkër ne ko police ba tëj na mu ne ko police ba tëj na waxi nit la yow boobu ba tey police bi mu juddoo ba tey musuma dégg ñu ne police tëj na mu ne ah tëj na daal tëj na ne ko yow léegi taxawal foofu nga xaar ma maa ngi ñëw ak sama oto mu bëgg am sama jëkkër daal di woo sama bu góor pour ñu ànd xale bu góor mi ne ko duma la xaar man daal wootee ma fi indi woon damay dem mu ne ko xam daal ne ko ba xam ko nag taxawal xaar ma mooy dëgg mu ne ko déedéet duma la xaar léegi na waa ji avant ñooñu ñooñu di ñëw sama jëkkër ji ñëw fekk na waa ji dem na mu jël xale bi indi ko bi ci kër gi tiital ko dóor ko xale bi bàyyi woon sam papa bi daal ne leen dóor leen ko ngeen tiital ko parce que lii baaxul ba fajar xale bi dem doxi kenn xamul fu mu dem ñu napp ko dóor ko mu ne woon moom moo xale bu góor bi ñoo nekkoon si ëllëg sa sam papa daal ne ma jël ko nga yóbbu ko hôpital moo gën a wóor ndax lii wóorul lu ci mënti am ñu xam ko ma wax ak policier bi nekk fii moom tamit mu wax ma même chose ma daal ne déedéet xaaral ma woo xale bi comme te ma may wax ak policier bi xaaral ma woo ko ma xale bi laaj ko mu ne ma carrément moom yàgg naa tëdd xale yu góor yi te man xaw ma ci dara léegi nag ba mu defee noonu ba ma defee noonu ma ne kon man su ma demee police ba wala ma dem hôpital gàcce lay doon ci man kon te dama koo jàppee ne sama doom naa ko suturaal daal di wax ak moom di yedd ko wax ak moom bàyyi noonu bàyyi police bi bàyyi hôpital bi. xalaas. léegi. daanoogul de. Aïcha. ci samedi gi ba ci samedi gi ma daal di dem hôpital yóbbu sama ñaari doom yi sama taaw bi ak keneen ko topp ci ko mu jëkkee dañoo feebaroon ma yóbbu leen Albert Royer ba ma leen yóbboo Albert Royer ma dem man ak moom fii ma toogu maa fi ba ñu añ ba pare waxtaan kafree mu ne ma demal ma daal di dem ay cinq laa fi jógee sax man maa toog ba ay vingt et une heures sama mag bi woo ma daan ma waaye ana jóobel ma ne ko ana jóobel xanaa dafa dem ci boutique ba wala dara mu ne ma déedéet demul ci boutique bi de ndax boobu ba tey gisuñu ko sama ki ko ñu luyee ci kaw woo ma daan ma man de awala ma indeel ne ma ay dix-huit heures ne ma day sangu day sangu su paree daal di ñëw jël awa mu ne ma boobu ba tey na gisuma jóobel te yónni woon na Mamadou tamit yàpp man xanaa ah, mu daal ne ma man tam ma ne ah loolu moom doy na waar de yoon bi lu may ñëwaat yépp sama jëkkër dem jënd gaawante jëndal xale yi garab yi yëpp ñu daal daw si daal di si damaa si tag rek la ma fekkee woon kër gi yëpp noonu la ko bàyyee daal di ñëw mën a tag daal dugg si biir na i nekkoon na sama almaam bi fekk sama jëkkër ma jox trois cent mille pour ma dencal ko ko ndax dafa am fii ñu muy liggéeyal ay maçon ak ay carreleur jox leen avance jox ma la ci na ma denc ko ma ne ko waaw ma denc xaalis bi ak sama sëba rakk boo xamante ne ko kee fa nekk moo ma joxoon tamit sëbaam ak samay bagage mu jël ko daal di daw lu ma xoolee lu ma xool affaire bi dem lu ma xool moom rek moo xam sama denc parce que moom laa doon wax même xaalis bi ma koy denc nee naa ko diw ma ne ko gis nga xaalis bi ngi koy denc fii sama jëkkër moo ko moom expliqué ko yëpp ak fu ma ko denc ak yëpp mu bàyyi ba ma dem mu ubbi sama armoire yu liiree ba mu set génne xaalis bi génne bagage yi ma fa defoon sama bagage yëpp mu xaaj bi yëpp mu yóbbu leen président de la République président président président président redigeerde voor een kandidaat voor een andere. Daar hebben <laughs> eh, <laughs> eh, <laughs> we het omgekeerd. Vier bedrijfsaandeel. Daar is iedereen nu niet. Ik moet ook al weer op dit idee. Ik denk iedereen mag er. Mani, assalamu alaikum. Daar is die object hierdoor. Mani. Ja, welkom. Zal. Zal welkom. Mani, maak je leidingen. Mani. Zal. Zal ik het eerste dus mogen dat ergeniet. كيما كيف كيما نستند الصوبات وكذا السلام عليكم ماني معاك لا ديك بابا ما ديك ديك ديك فوق بيتوك ديك كذا ما ما استند ماني لن مو ورا صوتي ها لن مو ورا صوت جبال بني سرداني يا بيتوك ديك ستخجيزي ها يا زيدي بيتك ديك نتوى يا زيدي كوي هذا تيجي